yow euh, personnellement euh, ci situation réew mi lan mooy sa diagnostic. Euh, man sama sama sama gis-gis ci ci ci réew mi moom mooy il est important tey ñu décrisper l'espace public ndax tamit Sénégal fu ñu nawee toujours moom mooy dañuy wax ni c'est un pays de droit c'est un pays de c'est une grande démocratie e je pense que échéance yi passé yépp on a démontré à la face du monde que Sénégal mën na effectivement euh, trouver euh, voie bi nga xamante ne moom mooy la voie du de la de la démocratie et mu ngi ci ñu ko ci encouragé maintenant tey dañoo nekk ci situation boo xamante ne euh, tiraillement yi position yi nekkoon na telement tranché ba ñu àgg ci situation boo xamante ne ñun ñëpp gënaluñu parce que je pense que euh, amul benn sénégalais. Euh, bu raisonnable boo xamante ne dina réjouir di gis euh, kenn ci euh, sus membre de la société nekk en prison rawatina koo xamante ne c'est un leader politique comme Ousmane Sonko ak ñi ànd ak ñoom dañ leen di massaw bu baax di ñaan vraiment ñu jóge foofu le plus rapidement possible mais di demander aussi que voilà les la justice mu trancher mais en étant vraiment vraiment équitable et permettre ku ci nekk nga nga nga am sa droit. alors